c'est le one man show effectivement oui c'est c'est amul amul tort oui c'est le one man show sauf qu'en politique on n'a jamais vu un one man show yoro moom fu mu nekkoon <laughs> ci politique yoro il était où oui il était là non je veux dire ci ci politique hmm. Ah, Quand je veux dire lui à quel moment il a raté son one man show à wu ci ak moom. Mm. mooy dafa ne benn one man show la gis. <laughs> Uh-huh. léegi man ma ne la. one man show boobu le problème c'est que justement. Mm-hmm. ñu ngi kaa gis ci théâtre ci scène wala di ko gis ci ci musique. Mm-hmm. wala ci lu ni mel. wala ci benn benn star de football sauf que au Sénégal aujourd'hui on a une star de ci politique. Mm-hmm. et jël yàlla def na que cette star la en politique au Sénégal s'appelle Ousmane Sonko ka mu neex ak ka mu neexul ka bëgg ka bañ ka nangu ka nanguwul c'est une réalité te li gën a metti na ku li uy ma uy lii bouteille la nga ne du bouteille da ngay fàtt de da ngay étouffé ndox mi lañ lay ubbil jox la ko xulil mhm. danga kaa ubbi nii u jox la ko naan ka mhm. daa ka naan ba pare xulli naan non du bouteille bi mhm. ñu ne la bouteille bi la il faut accepter les choses il a même dit Euh, je pense que mhm. dans le contenant dans le contenant ndaje la boo xam ni des gens étaient sous-sellés fatigués mhm. épuisés mhm. lassés de quelque chose am ku ñëw libéré leen ci d'accord jërëjëf euh, Baye ci li ñuy njëkk a taxaw nag ci euh, démb ca conférence bu mooy la presse gis nañu Ousmane Sonko li nga xam ne wax na ko jëmale ko ci une certaine presse bi nga xam ne dañoo amel impôt état bu Sénégal ne duñu ko fay ñu bëri ne c'est une menace Euh, Ndeyaram c'est une menace wala il a juste mis les points sur les i. on peut dans la sémantique ah di ut ban formule mooy bi gën a bi gën mais man man ci si si li ma dégg dama ne il parlait au patron de presse yi nga xamante ne fayeguñu impôt mhm. euh, dans le discours c'était pas je m'adresse à toute la presse. à la presse non personnellement man Ousmane Sonko waxul ak man démb mhm. man du ma patron de presse xam nga du ma de presse. Mm-hmm. et euh, quand il euh, da ngeen di jël xaalis ci seeni salaire employé pour war ko fay impo et et euh, ngeen pare encore en retour. Mm-hmm. di euh, ñaan. pour ñu may leen ko alors que da ngeen bokk ci ñi nga xam ni ñu ngi ci société bi da ngeen war a contribuer ci li nga xamante ne mooy doxal réew mi le ton peut peut déranger. Mm-hmm. parce que tamit am na foo xamante ne fa ngay toll dama ne. est-ce que Ousmane Sonko euh, départiru na ci euh, position euh, chef de l'opposition bi nga xamante ne ni moom la taxawee woon je m'explique xam nga am na noo xamante ne ni euh, soo ko waxee en tant que chef euh, gouvernement bi maanaam premier ministre mën nañ ne da ngay da ngay fayantoo et dans ses précédents discours ci lu mel ni jamono yi nga xamante ne mi ngi toll ñu koy bëgg a jubóoleeg président Macky dafa am wax yoo xamante ne da ko doon wax. Mhm. maanaam ñu man sama dënn dara neew si. baale mun naa ko def. Mhm. ñeneen ñi kay xëy na ñoom lay engagé par rapport ak li nga xamante ne nii ñoom ñoo ko am ak euh, sénégalais yi mais man ma concernant li nga xamante ne man euh, am naa ko ci sama dënn. Mhm. ci sama digganteeg président Macky Sall jàppalu ma ko dara. donc loolu noonu lay di ko teg ne war na mën na nekk wax jooju ci kanamu ñeneen. à l'entendre hier c'est dommage mais j'ai dit il n'a pas besoin de se mettre à dos la presse parce que Ousmane Sonko dañ fi toog période boo xamante ne une certaine presse daanu ko couvrir. Mm-hmm. et ça ne lui empêchait pas de s'adresser à son public. Mm-hmm. dem na ba nit yi dañuy dem di sikkimu ci page Facebook di xaar. pour dire que quand il fait un appel en disant je nit ñi dañ koy déglu mhm. kon kooku euh, warul am euh, jafe-jafe boobu noonu beneen bi mooy dafa am ci presse bi ñoo xamante ne nii dañ cee sonn loolu ci jamono yi muy nekk ci jafe-jafe mhm. bokk na ci ñoo xamante ni euh, tëj nañu seen tele bloqué seen seen signal lu ci mel ni seen TV parce que ci jamono ji nga xamante ne discours à la nation bu président Macky moo doon am moomee tamit mu ne day def discours jamono joojee ci bi ñuy tëj signalu Sen TV. Mhm. c'était euh, ci ci mbiram la woon coow. beneen bi mooy gis nañ fi euh, Walf yi ak yeneen ñoo xamante ne soit ay manifestation day am ñu am nu ñu taxawee ba ci site internet yi am nu ñu taxawee ñu sonal leen bu dul gaz lacrymogène mu ci yenn donc mhm. y a boo xamante ne jàpp nañu ci accession am tey ci ci fu mu nekk. Mhm. même bu dee am na lu mu liggéeyal boppam mais presse bi am na lu mu ciy contribuer donc faire ce discours là à cet instant précis bi nga xamante ne da nga nekk ci période euh, nit ñi en tout cas li nga xamante ne gis nañ ko mooy lu bëri ñu ngi ciy gëm. parce que mhm. xam nañu ay urgence am na mais les gens ñu ngi gëmm ci yenn yi en disant ah ñu ngi doog a yegg si nañ leen may au moins le temps d'adaptation. Mhm. donc tey soo taxee waxee ni man personnellement dama ne kon dafa am ñu mu mere. ci presse bi ndax dafay toll foo xamante ne day ne léegi maintenant c'est moi qui ai le bâton et la possibilité euh, ci sama njaboot ku doxalul ma rëkk sa ndig mhm. ci noonu parce que am na fooy nekk ci ci kilifteef nga nekk sa biir kër nga gis lu la neexul ci say doom mais du xeex bi ngay employé. Mhm. di nga di nga maslaa di nga am beneen façon boo xam ne na nga koy defee je que bàyyi woon les structures ñuy def seen liggéey on a entendu des kilifa de part et d'autre ñuy ñaan njekk par rapport ak cette histoire la on peut avoir de la rigueur sans pour autant euh, vexer qui que ce soit mm-hmm. parce que nag euh, fermeté euh, du du du du du euh, discours boo xamante ne da nga koy wax rek ñu ne ah tey ñu dee euh, les gens en toile de fond peuvent se dire mais demain kon média bi mën na tëj parce que xam nga ni ils sont dos au mur foofu laay wax ne on attend le le le le discours du premier ministre mhm. bi nga xamante ne moom dafa war a euh, jàpp ci lépp ngir structure yi dox ngir entreprise privée yi tamit jëm kanam mais pas taxaw di waxee discours boo xamante ne ku ko déggee danaan tey euh, su dalee sama kaw structure bi dafay tëj te dafa nekk ci logique gu dañoo war a créer emploi mhm. donc yegg si rek muy am structure yu am jafe-jafe peu importe difficulté yu ngeen am peu importe bu dee da ngay xool de dañ maa sosaloon dañ ma dañ maa fayantu warul nekk sa posture. Mhm. ça c'est mon avis. d'accord jërëjëf euh, Aram alors mami euh, démb bu ñu déggee kàddu bi nga xam ne jëmale na ko ci presse bi mën nañu dem ba ni euh, tey la ñu bindoon bu ñu ko bindaatee ku mën na nga bind la nga bindoon na nga ko bindaat am nañu ne c'est une menace tey bu Aram ne est-ce que le président Ousmane Sonko dissocié na l'opposant ak le premier ministre. waaw. est-ce que xam nga euh, Nabucor démb Ousmane Sonko bleu bi mu sol lu muy symboliser. lan lay symboliser dis-moi. donc kay waroon nga ci ñëw ci fond bi <laughs> wax dëgg yàlla yaa léegi dëgg nga ci kii bi fond bi. bëgg <laughs> nga ci fond bi. waaw ah, tubaab bi nee na ko defee dama koy bëgg. <laughs> Pape Assane tubaab bi nee na couleur bleue bi nga sol nii. dafay symboliser loyauté. nee na day symboliser vérité. Mhm. ñenn ñi wax ne psychologiquement dafay symboliser bien-être. oui c'est juste. <laughs> tu sais ah, quand quand quand corps. Mm-hmm. on se sent bien. quand on est à l'aise mm-hmm.